nga wax loolu. ah mais mais mais mais mais mooy buuru Sénégal mais mais dernièrement. mais mooy buuru Sénégal. dernièrement. Ah. qui nous a annoncé le limogeage. de de de de de de président. Sonko. qui nous a annoncé. la dissolution de l'Assemblée nationale. encore lui. qui nous a annoncé. Sonko. ba pare kan moo signé kan moo signé ku ku joxe ordre ñu ne ñu wuti leen ko ah loolu frère de la bi bu kan la ah le président il faut qu'on arrête nag voilà il faut qu'on arrête voilà si nous voulons nag on revient vers l'orthodoxie que république saxe parce que Diomaye Diakhar Faye qui est président je ne peux pas ñu def euh, comportement mais xam nga lan la gis nga duudu bala ñoo jox la eh, régulateur terminé non xam nga duudu bala ñoo jox la régulateur euh, grand bi mooy c'est que yow dama ne wax de waaw loolu laa ko mais mais yéen a ma wax ne fii mais a wax ne su ma pare bu ngeen baal ma ñëpp xam nañ damaa ëppal donc xam naa ne moom après commencé Keita man la moo tax dama ci profité le maximum pour xale téye waale samay vaar téye samay yëf su ma buñu ma dugalee ngeen may bëggee ndax xam na su ma su ma demee xam nga kuy bëggal ci xale yi léegi ma ni en ñu may dugal dama ne Bassirou Diomaye jaxaar fay moo war a wax ak ñun sénégalais yi dégg naa bu ñibbisee day wax ak ñun ñun xaaruñu ci moom lenn xaaruñu ci moom séance d'explication wax ay assemblée nationale yi ça ne nous intéresse pas ñun li ñu bëgg a xam mooy est-ce que moom il est prêt oui ou non à remplir la charge de président de la république ou pas si dëggantaan dans xam nga de da koy wax sa ba parce que nous on en a assez que son joue au président de la république alors qu'il n'en est il ne l'est pas ce n'est qu'un simple premier ministre s'il ne s'il ne est incapable de rester à sa place mais parce Diomaye Faye comme ni Sénégal comme il a eu le courage et l'honnêteté Diakar l'a réuni na leen Ousmane Sonko bu mu yem ci lorñe fauteuil bi na ko ne jàq waaw moo ko wax Bassirou Diomaye Faye moo ne waat tamit keroog ba muy jàkkaarloog les dix-huit millions de sénégalais na leen Ousmane Sonko mii li ma bëgg ci àddina mooy mu nekk le président de la du Sénégal mais loolu bu dee dëgg la ci moom bu jógee Chine nee day jàkkaarloog ñun wax ak ñun xaaruñu ci moom benn dàgg seen teg benn séance d'explication benn amul lu mu ñuy leeralal

Nous sommes dans le règne des inédits et des goulettes des premières fois. Quand on n'en est plus à une première fois après. Ah. Mais nous avons qu'il abrège la souffrance des Sénégalais, qu'il abrège la sienne aussi, mais surtout qu'il abrège, abrège, la souffrance de Ousmane Sonko. Mais nous avons dit que nous clairs, nous avons la transparence et honnêteté. Nous avons dit que nous avons bëgg ngeen ma lool xam naa ne su Ousmane ngeen yéene woon lii man na moo laa ko je démissionne de mes fonctions de président de la République tel que le stipule la loi la constitution mhm. mam Diop nek ko ñu organiser ay élections ñu ubbiwaat carte ñu ñu ubbiwaat carte gi nag wax dëgg fa yàlla Ousmane Sonko fi mu ni il est réhabilité dans tous ses droits mhm. lenn tegatul ci kawam mhm. toppeetuñ ko leen Macky Sall fobeeral na ko ba mu nice ginnaawam ba ndañ CV vierge Ousmane Sonko est dëgg-dëgg innocent comme le, le petit bébé qui vient dërëm dalatu ko macha allah yàlla continuer kon na Ousmane na Bassirou Diomaye Faye démissionné assuré euh, yëf ya ñu organiser élection présidentielle Ousmane Sonko dem jongante ko ak ñi ko bëgg. waaw yi fal ko ñu mu leer ñun nag ne yow Ousmane Sonko nag la Sénégalais yi jël réew mi jébbal ko ko. Hmm. waaw mu taxal mais nag ñun dañoo mëntu kon ñun Sénégalais yi Sénégal ñoo mérité wul wax dëgg fa yàlla ah, ñu suppu kanjawul feebul maasawul kalduwul. kii ma ma nga fee bu nekkee fële bàyyi ñoo ba ba si jomaay fay un deux trois mu dugg ci avion yi wëndeelu ci mbedd mi bu demee ba noog kii kii toj dëkk bi. rajaxe dëkk bi daaneel meuble it lépp ñu war a nekk si acte de commencement ci ay rayonte ak fayonte te sénégalais yi faluñu ko Bassirou Diomaye Faye bu ñu gisee wax dëgg fa yàlla leneen lu mu fi wax lu dul ñaar rek nga mën a wax safe mooy à partir ñu sénégalais gis ne on a un président de la république mu fees dell place bi mag li mu doon sëkk def yëfi góor yàlla jàkkaarloog réew mi tey mbir mi mënoo ko mais amal courage ak honnêteté nga démissionné bu puus nale dem battre campagne pour sa waaj yi mu ñëw Sénégal mu dem nag xeexi waat Sénégalais yi fal ko en bonne et forme mu ñëw toog ca ca yëf ya du doxal waaye nag lii du du du cëru gor du wàllu gor du euh, Bassirou Diomaye Faye nous doit ça un minimum c'est un minimum d'honnêteté intellectuelle et de courage politique mënoo mm-hmm. jiite yëf yi attanoo bagage yi Sonko nga ko yéene yebbekul si meekul ba set solo ko yëre bi mais c'est aussi simple que ça grand à vous la parole. <laughs> ma nuyu la pare naa ci nag dellu naa dans mon coin. <laughs> jërëjëf